دي والحمد لله رب العالمين الحمد لله دائما ابدا الحمد لله كثير الحمد لله كل حال موي نيغي سانتا يالا سانتا با مودا با مودا واري جولي سي النبي صلى الله عليه وسلم اك واكير مك صحابامي اك كيب كام ياغي تبا سنا بي يوم القيامه دي نيان يالا ميو لا بولسي يو يالا هي جامع اندكو فنانوكو يالا مي جامع يالا لو بال جامع يوكو نسيتو يوكو نيو كاتا يوكو نيوير ني فيبر نيكا تشي كي نيكا تشي لوبيتاي بوي نيكا تي جامع يالا يالا سافرا يالا يالا بولماي عافيه جولي جولي الله يالا يرمي هر اجنا يالا ياتر سين باميل نبي على سامر الأرض الله اللي فيها إنتو نسير سلعة المستقيم مش اللي سفيدنا مصيبة أقبل أك شيطان وهي يالا سامر الأرض موكو جيري على ده في سداري محمد صلى الله عليه وسلم دي جانا لك رمو بوبو ولكن نيو كنتيني سسين إيه، وحتاني زلزال موي آت كويت وهي سوف بو ينغتو وهي نون وسين بري يوم القيامة هو هو ينغ حميني موي هو تيتاني بي أك نيالا سبحانه وتعالى نيالا wàcce leen sa suufa suuf mooy ñi nga xam ne ñoo doon mooy yàlla ñi yàlla subhaana wa taala ekkati sa kaw a mooy ñi nga xam ne dañ suufe woon seen bopp si àdduna waaye ñu ngi doon jaamu yàlla bon ñaari kuréel yi ñoo am àllaaxira comme liñ doon jànga noonu aaya yooyu tiitaangi boobu ak ragandu boobu kañ la moo xew mu ne gannaaw bi nga xam ne zilzal am na maanaam yëngatu am na si kaw suuf ñu nag summa bayna taala mata yakunu zalika fa qaal subhanahu wa ida rujjatil ardu rajja waaw balaa boobu di am yowmal qiyaama lan moo njëkkaa xew mooy yëngatu bi nga xam ne moom la suuf di yëngatu ay azilzal al anif mu nekk yëngatu bu nag nga yi am fan yi yëpp ndeysaan benn place la am te du dëkk ba yëpp boo gisee tokki tokki fam fa am benn place la rek Syria fam fa am benn place rek nekku dëkk ba yëpp waaye xool leen kasaara bi mu fa def si ay bakken si ay alel ken mun laa wax naka la toll li fa dee si ay doomi aadama rek waaye bii nga xam ne moom la yàlla subhana taala di wax si alquran ida rujjatil ardu rajja mooy bés bi nga xam ne suuf si di nga yëngatu yëngatu bu am doole waaw bu am doole bi xaysu yandamu kullu ma xawlaha boo xam ne nag yëngatu boobu loo xam ne rek mu ngi woon si kaw suuf muy ay building ay étage muy ay xeer ay mountain yëpp yëpp yëpp ay maaba yëpp ay daanu mu ne dafa mel ni suuf soosu buy yëngatu naka la moo misaal bi mooy ne boo tiyee liir léegi-léeg nga gis liir bi muy weexu di jegatu nga gis yaramam bi yëpp macha allah nga gis ah, xale baa ngi weexu mu ngi jooy di weexu mu ne misaal bi àdduna bi yëpp noonu la ma melandoor benn bes si benn waxtu amu na ñii dañ ko am suba ñi am ko bëccëg dafay ñëwandoor benn waxtu ñim fekk si guddi guddi la si guddi la moo nekk ñum ñum fekk si bëccëg si bëccëg la moo nekk si ñoom ñum fekk si suba si suba la moo nekk si ñoom ñum fekk si ngoon si ngoon la moo nekk si ñoom waaye benn waxtu la moo ñëwandoor ku nekk nag des na si ban waxtu la la fekka waaye yëpp a yëngatu nekku na ñi dañ ko am tey ëllëg muy dem fële gannaaw ëllëg fële déedéet mu ne misaal bi mu ne comme ni liir di weexoo soo ko téyee xale bi di weexu nga tànk yeeg yaram bi loxo yëpp mu ngi weexu mu ne noonu la àdduna bi di mel waaw mu ne bi loo xamee ne rek mu ngi taxawoon si kaw suuf yëpp dafay dal di daanu yëpp ay daanu muy taax yeeg mountain yi xeer yu mag yëpp amul dara luy def si kaw suuf mun ne bu bustatil jibaalu basta waaw jibaali moy mountain konko yi yépp dafay nekka suuf doom te xooleen mountain xeer yooyu ku dem dikka bu mel ni arabi saudi maaka ngay gis xeer yooyu ñu ngi la ne ñaata million at ñu fa amul dara lu leen mën a génne foofu xanaa nit ñi ñëw di toj waaye suñu leen fa bàyyi fa la ñoo bàyyi fa la ñoo nekka ba ilaa yow madin ku dem madina nga gis uhud jabalu uhud mountain uhud nga xool naka la toolu moto def koy daw lu ma fifteen minutes fukki minutes ak juróom wala lu ma ñaar fukki minutes di ko jeexal nga xool loolu yooyu yëpp ñooy nekk suuf rajaxe subhanallah mu ne fa kaanat habaan munbasa ay fasaarat ubaaran mutafarriqa mu nuyu yëpp ak taax yiñ sampoon yëpp dafay dem di mel ni doomi taal nekk ponda moo ko julliti bon jamono jooju fan la nit ñi di dem fan daw amatut dimbali ma amatut jàppale ma amatut ku nekk sa bopp ngay tal ku nekk sa bopp doy na la boobu ndég loolu mooy wane ne yàlla mi moom àddunaam jël na ko du fi bàyyi dara dara dara du fi des loolu mu ne wa yabqa wajhu rabbuk zul jalaali wal ikraam yàlla rek ay des moom donc kullu man aliha faan waaw mu ne loo gis si kaw suuf rek yëpp yëpp yëpp dina jeex mbokk jullit yi bon luy waral xiiroo bi ak ñaayoo bi jëfante yu bon yi waxante yu bon yi yëpp mbokk jullit yi bisa ngee ñëw kenn du ko tal te dina am de dina ñëw de comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee si alquran منبسا متفرقة معناها بيبقى صاروا وهذه آية قوله تعالى وتكون الجبال كأحن منفوش واو وسير الجبال فكانت سرابا وكنتم أزواج ثلاثة ليب يلا ñu won ne mountain yi nga xamé ne xéer yi nga xamé mo gëna digër doomi adama yépp dafay nekk doom yépp dafay nekk punda dara du taxawati ci kaw suuf bon lu daane loolu lan lay def ci kaw doomi adama leneen moo def si kaw doomi aadama bon doomi boobu kenn du fa des bon loolu tax mu ne nag yàlla subhaanahu wa taala mu ne mu dal di xaaj doomi adama yi ñetti xaaj wa kuntum azwaaj salaasa ay kuntum ayuhannaas asnaafan wa firaqan salaasa yàlla mu ne nag ma def leen ngeen nekk ñetti groupe hmm. ñetti groupe yi groupe bu nekk nag am na maqaam am na place moo dem gannaaw bi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala jeexal na àdduna lu ci biiram ñëpp taxaw nañ ci taxaway boobu nga xam ne inna yawma inda llahi ka alf sana ben bés sa yàlla nek 1000 years yàlla até ñëpp way ñet yàlla wa taala dal di haaj mboolo bobu yëpp mu haaj la ñetti haaj waaw wata ne wa kuntum azwajan salaasa ay asnafan salaasa ahlul yamin wa ahlu shimal wa ahlu sabaq waaw mu ne ñi dem jor ñi dem càmmooñ ak ñi jiitu ñetti groupe bi mooy lan groupe bi dañoo taxawee ndeyjoor groupe bi taxawee càmmooñ groupe bi nag mooy groupe bu jiitu bu nekk sa kanam lii ku ko dégg rek daanaka mën nga àtte ñetti groupe yi ban mooy ban parce que ñi nekk si ndeyjoor ah kañ ñooñu fan lañu dem arjana ñi nekk càmmooñ nag ñooñu moom bokkuñ seen mbir ndeysaan waaye ña mooy ña doon jiitu si jaamu yàlla ya si la yàlla santaane kenn du leen si eh, eh, eh, jiitu ñoo see jiitu loo tax mu ne fa amma saabiquun fa hum ahlu darajaatu ula fil janna waaw ñooñu nga xam ne ñoo nekk sa kanam as saabiquun ñi xam ne ñoo raw ñooñu nag ñoom lañ jagleel kër ya gën sa arjana waaw muy ban janna janatu firdaws loo tax yonent bi mu ne bu ñoo ñaan yàlla nañ ko ñaan jannatu firdaws fa innaha a'la